mbokk yi nuyu naa leen yéen ñëpp ci seen tour euh, ak seen euh, sant sànq fii fii nii le ancien ministre mbay Ndiaye toogoon fii muy wax fekk ñun ñu ngi ci réunion ñu ne ko amoo sañ-sañ pour wax fekk député yaa ngi réunion ñun ñëpp ñu laajte pour que mu génn effectivement mu génn gars nit góor wala jigéen da ngay nekk ci principe boo principe nit ñun nag principe yi ñuy jiite mooy li nga dagan tey donte ku def APR la Pastef la bokk président la bokk wala bokkul feneen donc perturbation yi amoon fii ce matin yàlla mënul def man ba ma encouragé ko ak ku ko munti def muy benn waaye waaye Amadou Mame Diop xanaa tey nga xam article règlement intérieur xanaa tey nga gis article réglement intérieur ba naan na nga koy appliqué oui ku fi perturbé fii danga ngaa war a génn ñii liñ fi def du dëgg du yoon waaye Amadou Mame Diop ñaari at a ngi ngay gérer xaalisu assemblée nationale règlement intérieur ne ñetti weer yu nekk da ñu war a jox bilan at bu nekk da ñu war a jox bilan annuel depuis deux ans amul benn député fii bu xam xaalis bi fu muy dugg xanaa gisoo article yooyu xanaa gisoo article yooyu Amadou mam Diop moo tax bu fekkee Amadou mam Diop da nga jël sama ñaari collègue naan leen bu leen ma fonton yow ñaari at a ngi yàgg ñuy fonton ñaari at a ngi yaa ngi fontoo askanu Sénégal ndaxte xaalis bi la dénk taxe ak lempo citoyen sénégalais ya donc yaa ngi ñuy fonton ñaari at a ngi loolu nag bu noppee mbokk yi li ñu fi dajale jarul xuloo li ñu fi dajale jarul xuloo dafa amoon président boo xam ne bu bëgg askanam mu ne dugub mun nga ci def cere waaye dugub mun nga ci def sàngara waye tiéré mo upp solo lolu jarul xulo liñ fa dajalé moy 75 milliards xawma 76 milliards HCT ak Conseil économique, social et environnemental 76 milliards pendant 5 ans ndax politiciens professionnels dañ koy seddo sen biir ak sen clientèle wala ndax dañ koy jox askan wi lolu tu ñu dajalé te lolu jarul xulo ñi nga xamné jox camarade de parti ñi nga xamné jox clientèle politique lolu mo leen gënal nañ ko wax te waccu tok askan wi seede waye man Enampor Yon Digente Brun ak banjal ñu ngi bëgg a Togna na ci nawet bi yon na ak wa ñassia Jalan ak Kagit dafa meti amul goudron te yéen ñëpp seeni commune seeni département bëri na gox yoo xam ne ñu ngi sonn di bëgg a dee ndax ñàkkum yoon soixante-quinze milliards yooyu war na fa dugg dama ne waaw dëkk bu mel ni Guéréo dëkk bu mel ni Dionewar dëkk bu mel ni Bargny ak ñoom seen ndoxu géej baa ngi nangu seeni almeer ndoxu géej baa ngi nangu seeni kër te ngir loolu ñu mun ko saafara foog ñu teg fa ay doj yu faut que ñu tabax fa ay digg te digg yoyu xaalis la léegi nak yene xol am ngeen sañ-sañ ne li leen gënal moy 75 milliards yi ngeen seddo ko yeen waye ñun am nañ sañ-sañ wax ne li ñu gënal moy ñu recruter ci ay enseignants li ñu gënal moy ñu tabax ci ay écoles génnee suñu yenn xalé yi ci yenn situation yi vous vous rendez compte le CM de Tambouy Bignona 100 pour au BFM toutes les classes sont des abris provisoires nous avons des enfants il faut que nous ñu les leen ci abri man n'ak sama Ousmane Sonko nommé premier ministre muy dem match football moyen de l'État Koko Bouma budget Sénégal dinañ ko yore nu mu ko a man amna milliards sama patrimoine mu ngi 8 milliards Waouh xam ngeen luy sàcc Macky Sall moo ko sàcc huit milliards da ko sàcc dafa yàq Sénégal def lu raw golo lu muy def ca àll ba Macky Sall moo def fii ci Sénégal lu raw golo lu mu def donc waaw je vote pour la suppression pour que ñu dugal xaalis bi ci askan wi je vous remercie. La parole est à notre collègue Ndialou Bakili suivi de Bilaliba.